li li li ngay wax ni mu ngi mel ni. Mhm. Euh, suñu bokk nasaraan yi. Mhm. li ñuy wax astrologie astrologie chiffrologie numéro mi ngi noonu yooyu yëpp xam ne tey jii suñu mbokk nasaraan yi ci la ñuy ñoom di seet ba di ji mën a xam waxtu bi heure bi muy xëy. mi ngi noonu mi ngi noonu wallaay ndeysaan. nga laal léegi ne tey jii bokk na ci. Mhm. réew mi nga xam ne moo gën a neex gisee weer. te mas ma fàttali ko suñu jotaay bu ñu mosoon wax. ba nga ne bés a ngi ñëw. dinañ dem ma dekkil leen île de serpent. faram fàcceel leen ci. loolu yàgg na waaye maa ngi ba tey bu ñuy xool île de serpent adduna yëpp île de serpent lañ bëgg ñun ñu am ko ñun ñu am ko kon day daal indiwaat ci li nga waxoon léegi moo tax ma ni la fii moom ah, weer moom bu ñu koy xool ci bët bu ko Sénégal gisul kenn mënu koo gis li ma la wax kay dara du ko dindi dara du ko dindi mm-hmm. dara mënu koo dindi xam-xam rek la moo tax euh, suñ borom euh, dafa waajal doomu aadama ci lépp mm-hmm. moo tax nit warut a tëb tëb rek dugg ci dara mm-hmm. Euh, nit saa bu ko defee rek mën naa dugg ci fitna joo xam ni mën na ko sonal ci dundam mhm. li ñuy wax naan euh, kuy tànnloo suñu borom subhanahu wa taala doo juum waaye euh, listixaar mooy tànnloo yàlla subhanahu wa taala mhm. mhm. nit ki damay wax ni saa bu xamee ay mbiram rek noppi naa sonn ci àdduna saa bu xamee fi muy teg tànkam noppi naa sonn ci àddina te àddina dara jëfewul léeg-léeg nga gis ku jékki-jékki ak dundam gàtt lool ñu ne lu ko faat dëgg la yàllaa ko def waaye nag léeg-léeg mu doon loo xam ne ñàkk kaaraange ci boppam lay doon ndax yéen sa sam daf ni xassinu anfusakum aar leen seen i jëmm mm-hmm. yëmu co daan ni ax ja sun naas mun naa sax ni duhaay ki gën a doyadi ci yàlla bind mooy ki gën a doyadal ñaan te ñaan dafa doon lu am solo ndax yéen sa sam daf ni adduhaa usilaahu mu'min mooy ngànnaayu jullit mm-hmm. te jullit bi amul lu gën a rëy ñaan doomu aadama bi wurta bàyyi ba jaaxle rek di ñaan lu mm-hmm. war nga mën a listixaar lu say mbir xam fi ngay teg sa tànk même bu dul dara sax nga xam sa tànk ngir muccal Euh, fagaru moo gën faju hmm. li ñuy wax ni da ngay wut da ngay wut solution hmm. balaa jafe-jafe ñëw mooy tax daanaka yu bare bëri di la di la la mën a di la mën a di la mën a di xew waaw kay <laughs> mu doon lu ma sëñ bi macha allah hmm. ci ci ci leeral boobu bokk na ci nit dama waxtaan ak moom mu boo boo boo pour mu seetal la mbir bala ngeen di jëflante dara day toll ci seet foo xam ne sax dal naa ne waxal say waxal say itte ñu jublu ca ndax day gën a gaaw waaw loolu moom dañuy dañuy faral di dal waaye loolu lu du waxtu bu ne lay doon nag léeg-léeg ñu toll ci xaala boo xam ni mm-hmm. ala kulli xaal nit ki eh, bu ñu waxee ay mbiram rek ba noppi du jar sax ñu koy set mm-hmm. loolu tolluwaay la mm-hmm. nit dafa am fu muy toll diggam ak boromam ci léeg-léeg ci yëg-yëg foo xam ni foofu euh, benn dara doxu fa mm-hmm. amul dara lu ca dox amul dara lu dox ci diggante bi lu dul ah. lépp day leer naa ñi ci yow mm-hmm. léegi nag bu ko defee loolu tolluwaay la waaye du waxtu bu ne la ñu dikkal moo tax li mm-hmm. ëpp daal dañ koy seet léegi nag léeg-léeg ñu toll ci tolluwaay boobu ba daanaka nit ki moom bu ñuy wax sax ci tolluwaay boobu dañuy bëgg mu ni tekk ba noppi waaw fekk foofu lu ñu soxla mu wax waaye tolluwaay la rek dañuy dikkal léeg-léeg waaye daal li ëpp solo ba ëpp solo mooy nit moom njàqareem kenn du ko ko woyofalal nit itam yitteem kenn du ko doy dal mhm. nit itam soxlaam kenn du ko tuutal ndax nit ñi li ñuy bëri bari mhm. bokkuñu ay soxla mhm. bokkuñu ay problème waaye kenn ku ne soxlaam ak problème am man dama koy def comme sama yitte ndax loolu mooy mooy li gën ci man ndax li may def sama bopp laa koy defal man amila saalihan fa li si lu waaye def sa bopp te in yansurkumullahu fala gaaliba lakum te itam in tansurullah yansurkum suñ borom nee na bu ngeen ma dimbalee ma dimbali leen te loolu ku ne xam na ni yàlla aajowul ndimbal te lépp aajowoo jëm fa moom mhm. te dara aajowut jëm ci moom dama juum ma ni dara aajowut jëm ci moom déedéet moom aajowut jëm ci dara te lépp dara aajowoo jëm fi moom te lu dul jëmmam jëfa ma mhm. ndax lu dul moom amoon na ay jamono amul moo ko amal mhm. te lépp ci kàttanam ak man manam ak sañ-sañam lay doxe te kon bu nee bu ngeen ma dimbalee ma dimbali leen loolu ku amul dégg-dégg war na koo xool luy loolu te yàlla euh, lu dul jëmmam di jëfam fukk lu ma si waaw sunu ko mm-hmm. loolu li ci jublu rek mooy bëgg ñun ci suñu biir ñuy dimbalante mm-hmm. nit lépp loo ko tanee dimbali ko rek ndax di nga wax bi mm-hmm. moo tax euh, yàlla moom dafa doon ko xam ni buñ ko xamoon ak lim ñu yéene ñun ci suñu biir lépp loo xam ne tere nañu ko muy ak moy wala ak lor doomu aadama na nga xam ni sa loraangee ci ne moo tax mu tere la ko lépp loo xam ne digal na la ko nga xam ni sa njariña ci ne moo tax mu digal la ko ndax dégg nga wax bi. baax yàlla lépp lu ñu tere rek. Mhm. buñ ko sóoboo rek gàcce ak métit ak toroxtaange adduna ak alaxira ci am. Mhm. waaye lépp lu ñu digal buñ ko dëgmalee rek. Mhm. ndam adduna ak alaxira lañ ciy amee. kon da gis ni lépp ci suñ njariñ li ci suñ bopp lay dellu. waaye dara delluwut ci moom. ndax dégg nga wax bi. baax baax moo tax li ci ëpp solo ba ëpp ci solo mooy nit ñi kenn du leen woyofalal seen i soxla. moo xam nu soxlaam mën a toll nag def ci it ba mu saafarawu mm. man nag loolu ci lay xëy ci lay gont waaw ci doomu aadama yi daal ci lay xëy ko gont <laughs>